mbokk internetu Sene News ñu ngi leen di nuyu fi mu toll nii nag ñu ngi ci quai de pêche euh, bu Wakaam euh, comme ni ngeen ko xamee rek démb euh, benn pirogue moom moo fi rek daal dee wàcc li nga xamante ne nag moo fi jot a rot ci ay bakkan yoo xamante ne ay nit ñu ñu jot a génn ci géej gi la te ñu ñàkk seen bakkan lim bi mu ngi toll ci fukk ak juróom-ñeent ñu ngi toog nag ak président quai de pêche bu Wakaam gannaaw bañ la nuyoo ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw soxna si maa man maay maa ngi tudd Latir Gueye maay président enquête pêche Wakam quoi. Latir yëf yi bi mu tàmbalee euh, naka kañ lañ la woo ak naka nga ko yëgee. waaw man affaire bi dama tëdd ba ay 2 heures du matin 2 heures 24 précisément quoi après kii yor sécurité place bi woo ma dama am na benn gaal bu ñëw fii xam nga mais il paraît que ñun dañ bëgg moteur si place bi mais que non non xaar man maa ngi ñëw léegi en cours de route mu rappelé waat ma ne ma.

Maintenant.. Maintenant trop trop trop trop parce que comme je suis sa kaw rek mënoo xam méttiwaay bi parce que ñun tous ay doomu Adam lañ te ay Nous lañ tamit aussi des Nous ñoo bon ay doomu gens lañ ont na ay rakki jàmbur lañ ay des gens lañ des ay responsabilité ay mais waaw C'est des mais li si que ne ndaw ñu quoi 2 heures du matin. ci 2 h du matin waaw. non que ñan nga fi fek ben gendarme environnement ah femme tamit gendarme ah quelques pêcheurs yo lu trois aussitôt bi man pour ma wàccee suma gaal bu ndaw xam nga après embarqué tëmb def patrouille noonu si si côte bi xool mais gisuma benn corps ay sac daal laa romba ñuy tëmb ma ramassé sac yëpp après bi may ñëw pour génn laa romba benn corps sans vie ma ramassé ko teeral ko. ay benn benn lañ mag mag ñi dëggantaan ay benn benn lañ quoi mais ay jeunes ñoo si ëpp démb corps yi ñu génnee yëpp ay jeunes lañ ay jeunes lañ ba aussi tey bi euh, tey jii si.

ak ki ma génne mu nekk trois corps après trois corps yooyu lañ yóbbu après si matin bi ay huit heures ñu commencé def recherche yi sapeur quoi après si lañ commencé di repêcher corps yi. parce que man ba bi may dem ay seize heures yooyu wala seize heures moins dix sept corps lañ repêcher boo xoolee yëpp ko nombre bi yëpp trois yi génnoon si guddi bi ah yi quatorze yi génn si kii bi quoi nekk dix sept corps. ah si guddi bi ñëwee amoon na rescapé fi ñu fi nekkoon au nombre de deux après gendarmerie yóbbu leen hôpital. à la suite ñoom mu yóbbu leen xam naa pour def enquête ko vague bi wul bi moo ko indi parce que démb géej gi dafa yëngoon si guddi gi dafa amoon vague léegi mu koy dóor di ko tuur parce que bon man maa ngi yaakaaroon na sax benn genre banta la quoi buy teer quoi xam nga ñun mool des fois dañu bëgg des fois gis banta buy teer day kay fot pour en di ko def ay banu gaal wala ay raasax yooyu man loolu laa ko tegoon quoi. bi ma jëlee suma làmpa nag ma dóor bi ma dóoree nag man a ya de nit la wala mawa xam nga mawa ki nest monaat quoi waaw ma naan lii mawa la wala non non non ma doxaat lu ma trois poids teg quatorze bi muy nit mu dëpp mu dëpp teg si suuf si nii yemoon nag instant boobu ba ay quatre yooyu géej gi commencé di fetre manam fet moy yë xeer yi commencé jënn vague bi di gëna a wàññeeku quoi si la jël ben bidon 30 litres ma for ben bidon 30 litres def souf ba mu fess comme nu mu tëddee nonu ma jël ka kalka tekka si non non kenn ki mom féeyul parce que dafa xaw bi quoi xam nga moom mënu won féey mais bi gaal gi ñëkke def secousse ci kaw Rossi moom wàcciwul te lolu moo sauver parce que gaal dafa def secousse ci kaw Rossi

tëmbaat quoi. am na tamit coow loo xamante ne jot naa jóg fii ci quai de pêche parce que euh, am na euh, ci ay bataaxal yoo xamante ne jot nañ koo gis ci press bi ñu ne euh, ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu repêché biñ leen biñ biñ leen laajee dañoo ne course poursuite moom moo amoon seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di marine nationale bi loo dëggal la wala loo xamante ne da ci ciy indi ay firndeel. waaw man parce que instant boobu ñu leen déglu man instant boobu c'était pas présent mais ñoom appel bi ñu ñëwee wax ne marine moo leen toppoon. mais comme bi ñu wax man nekkuma fonte mun ma si xóotal quoi. man ni ma ko jàngatee affaire bi ni ma ko jàngatee bon accident la daal accident la parce que mooy mu ngi mel ni borom oto ngay dawal oto sa faar say faar tàkkul si yaa ngi hmm. doo xam fi nga jëm fan la man noonu laa ko jàngatee quoi noonu laa ko jàngatee. waaw cause accident mooy ñàkk xam fii rek parce que tey bu nekkee capitaine tey.

yow su fekkee da nga wàcc nga jàkkaarloo place bi léegi vague bi bu dóoree gaal bi day ñëw sa kaw il paraît que ñenn loolu moo leen blessé ko gaal gi moom moo dal seen kaw coince leen si kaw roos si ko waaw ñenn ñi nag mun ñu fee ñu dugg si profondeur boo xamante ne peut-être dépasse na ñoom seen taille après ñu noyé ko non non non non non parce que fi mu nekk nii du ñu du ñu baara si dara duñu baara si dara quoi parce que xam nga lu tax duñu baara si dara. parce que loo xamante ne yoon moo ko texal ko yoon moo ko texal ko comme ñun du ñu baal si dara. parce que yoon rek moo mën a wax na ne. e eh jéntee leen ñu jénnee e eh dugal leen ñu dugal parce que moom suy loxaam la nekk ñu amuñu si ñun amuñu si benn responsabilité quoi. gannaaw démb est-ce que tey bi ngeen ñëwee gis ngeen ay rescapé. waaw ñoom tey bi ñu ñëwee tam foo nañ benn ko fan nañ benn ko suba quoi.

amatoo fa loo xamante day couvrir ses besoins da ngay tenter dem fa nen mais mool yi c'était très rare gis benn mool mu ne mu ngi dem clandestin mais bu dee na ba géej bi amatu jën bu gaal clandestin demee rek parce que mool moo si nekk te su mool yi doon am jën tey kon duntal na ñu ngi dem clandestin état ñun dañ leen koy ñaan ngir yàlla ñun jeunes yi jeunesse bi ñun ngeen dimbali ñu ngeen dimbali ñu te yàlla tax ngeen dimbali jox ñu loo xamante war na mën a tax ñu toog fii di ko ñàkkante bañ dem di wàlli wani ñak xool ñak ñu jox li ñu moom rek mo waral rek ñuy dem di wàlli wani mais baat Seydina gënaluñu kenn même ki di kii di ñàkkante di paas xaalisam sax gënalu ko mais ñak pexé pexe la loolu moo tax ñuy jeunesse ñu jeunesse bi ñuy dem ñuy lay suñu boppa parce que ñi jógee ci si régions yi ay Touba ay comment dire je yenn régions yoo amul géej

ba am si cinq xam nga ma wax dégg wala 000. Il xam nga nga jël ko y a nga fi wala nga dem def si ay yooyu business ah yooyu noonu xam nga ba noppi ñëw joxe ko ñu a di la wër si géej gi di la wër la ay ay trois jours 4, jours jours bana dara si benn tefes am na fi. Mhm. du fi moment Euh, période bi ñu toll nii moment bi ñu toll nii gaal bu fi départ doo doo doo àgg Espagne. beneen bi tamit dañ gis ñoo xamante ne dañuy jël gaal dem ba Espagne nga seen leen ñuy def ay vidéo wane ne ñu ngi dugg Espagne déjà ñu ngi ñu ngi motiver ñiy des pour ñu dem au contraire nag wala si si beneen sens bi am na ñoo xamante dem nañ mais mun ñu def vidéo parce que ils ont déjà péri mën ñu def vidéo ñii réer nañ ñii dee nañ xam nga ku dee tey mënu def vidéo mais boo gisee kenn benn gaal bu def vidéo ne mu ngi dugg biir Espagne. jàppa si xel tamit ne am na ñaari gars yoo xamante peut-être des nañ si géej gi te ba tey ñu def vidéo xam nga te fekkoon ñoom mën nañ def vidéo peut-être la majeure partie duñ mais situation bi nekk mun nañ def vidéo parce que ñii dee nañ ñii réer nañ kon léegi déjà vidéo yooyu bu ñu koy mën a censurer muy benn motiver ñiy des loolu tamit dina baax trop quoi.